sarax la ñuy def ci xew xew lamb tey fekk fa ancien ministre des sports ba Mbagnick Ndiaye mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Alioune Sarr moom Mbagnick Ndiaye kàddu ya mu dénk waa sunu lamb la muy firndeel mooy bu dellu si waatoon ci bopp ministère bi dafay bàyyee Alioune Sarr kenn du ko fi jëlee moom sax boo déggee ay waxam da ngay xam ne liggéeyu Alioune Sarr doy na ko convaincre na ko la mu xëy fësal ca sunu lamb mooy Alioune Sarr ne doit pas rendre le tablier Alioune Sarr ci lamb ji bari na kenn mënu koo wàññi Alioune Sarr mooy yeesalaat lamb ji ba ñépp sawar ci Alioune xam naa ko biir xam naa ko biti nit ku fonk liggéey la te xam social dëgg la nag mbir mu ne du ñàkk ñu am gëm am gis-gis yu mën a doxal mbir ma waaye Alioune Sarr mi booy wër ko jub ba yegsi ci moom da taxaw booy wër ko am principe ba yegsi taxaw booy mën a défendre ay idéem ba yegsi ci moom da koy tànn ni mu amee ñu nekk ci lamb ji naan na fi Alioune Sarr jóge noonee la am ñu nekk ci lamb ji naan na fi toog ñi xam Alioune xam liggéeyam kenn du ne na fi jóge ñu ci ëpp ñu ngi naa Alioune Sarr na démissionné waaye dama bëgg ñoo xam ne départu Alioune Sarr dépendre ci moom du ma dugg ci gestion Matar ba nag waaye Alioune na ci lamb ji Fallou Ndiaye ne ca tonn ne ko na fi xaw ma baaxu fi waaye moom ministre Matar ba jàppalewul ñu ñun promoteurs yi le ministre pas loolu mooy ay kàddoom ñoom promoteurs yi ku nekk ci làmb xam nga ne jàppoon nañu ay combat ba joxe seen xaalis nekkoon nañu ci seeni démarche corona ñëw pause lépp la ñu doon jort mooy fond de riposte bi danañ leen ci jàppale ñoom promoteurs yi wala secteur privé bi nekk ci làmb ji waaye li mbir mi dëgër dëgër gisuñu soutien gisuñu dara Matar Ba ak Aline Sarr gisuñu leen ñu soutenir làmb ji ci période bi ñu toll ñoom dañ ñoo war a jàppale ndax xaalis bu lañ dugal ci làmb ji ñun acteurs yi nekk ci làmb yépp dañoo war a booloo naqarlu loolu dañoo war nekk benn défendre suñuy intérêt ka war a ci diggante fii ba ba muy bàyyi làmb mooy Bombardier le loo la war a jëli benn ba ca Gris benn ba ca Tapha beneen ba ca Eumeu Sène ñaari revanche la war a joxe benn bi ci Modou benn bi ci Balla Gaye 2 le juin 2014 la daan Balla Gaye 2 le 25 mu daan Modou Lo moo waral journal ba ne cinq revanche de fois moom la Bombardier am ci kanamam gannaaw benn saison moo ko desee ci carrière am xëy dana ko lijjanti balaa moo bàyyi cinq revanche yooyee faaw mu lijjanti ci benn doog a tekki ngembam jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah